Nous avons gis ngeen euh, engouement bi nga comme d'habitude population ko a amati nañ ko ci président Nous avons ci que ndax euh, lii dama une coïncidence heureuse la ndax dañu le euh, week-end bi samedi nous bi dañ ko programmé déjà au niveau de la commune def ci opération pré-hivernale parce que ku nekk xam on est à la veille de l'hivernage

lépp loo xam ne gouvernement bi woote na ko président woote ko premier ministre woote ko ànd ci ak gouvernement am ko woon def ci bëgg a nekk un modèle un modèle joxe ci engagement bu mat sëkk wane nag que communes yi aussi ñoom ñoo war a mettre en œuvre les idées lancées au niveau national parce que ñun ñooy liggéey ak population bi mais gis ngeen sant yàlla bu baax liggéey bi euh, au ministre bi ñëw na gouverneur ñëw na préfet ñëw na ñun ñëpp ñu ànd ci liggéey bi nous dem nañ mais dañuy continuer ndax fi nous ñu liggéey la euh, président lancé euh, premier ministre ak gouvernement wuñ ci nous population ko dañu bëgg dans la réalisation des actions et des programmes du gouvernement donc di am rek di di remercier bu remercier UCG remercier FERA remercier cadre de vie remercier tous les acteurs yi nga dañuy yëngu secteur bi nous avons une occasion pour lancer un appel aussi comme nous avons dit le ministre Nous ndax ku problème d'assainissement. un problème assainissement problème assainissement bi am Kahone autorité municipale mairie bi mënu ko gérer mais il faut que nous ayons ci appui appui autorité nationale nationales. loolu rek mo mën tax que ñu def ko mu day ñu un bon suivi bu amé un appui sur l'assainissement je pense que euh, li nga président woote nako nous avons lo des dañ chaque jour pour le bien des populations parce que le euh, développement est un préalable le préalable du développement c'est être dans un environnement salubre un environnement sain Nous un esprit sain dans un corps sain donc président de la woote nous ñuko fait Santé bu baax diko gëreum que euh, kawoon du dess du mës a des ginnaaw ci euh, lu melni lool la doon wax legui ministre bi parce que euh, gis ngeen ñom ni dañ fi installer wu ni sans autorisation sans lenn mais ku nekk xamna esprit sénégalais yi foog naa sax am lu fi jotta jib né il faut ñu xol nan lañuy def pour ñu génn fi mais dama len né rek ñun ñep ay sénégalais lañ té bu ñu waxtaanee suñu biir euh xol nan lañuy gérer suñu cadre de vie ñom aussi ñu ci am apport. ndax yow foo dëkk war nga ko setal am apport ñun ñii lépp loo xam ne war nañu ci danañ ko def man mii maa leen proposé ñu fexe ba defal leen toilette publique su ko defee fii day gën a set day gën a am assenissement te loolu nga xam ne man mii maa ko proposé danañ def de telle sorte que loolu mu am ci biir gox gi. nee naa leen tey bu weesoo dinaa dugg ci biir quartier bi nga xam ne quartier bu am problème mu salubrité la ma wax ak euh, association de famille gis ngeen femmes yaa ngi woon ci biir. ma wax ak responsable wax ak jeunes ñu chaque semaine ñun ñooy xool ban jour dans ce quartier ñu ciy def cette chaque semaine soit un samedi ou un dimanche mais mu mën parce que ko def rek mais il faut un bon suivi un bon suivi ça se fera avec la population Nous avons jël nañu engagement ak man ne le suivi de ce qu'on a eu à faire aujourd'hui. parce que xam nga doomi setut euh, ñun problème bu rey lañu am fii ci Kanda Fodé Ba surtout gis nga mbalit bi liñ fi den dindi ci ay mbalit ay toni toni toni mbalit euh, di ko njëkkee gërëme président de la République mooy Bassirou Bassirou Diomaye fay di ko gërëmee madame le maire ko am Pastef la ndax biñ toogee ba léegi lii mooy li liggéeyam fexe dëkk bi set fexe ki xëy na moyen yee manqué ndax bañ commencé ba léegi gis nga oto oto bi dafa xaw a man kon ah, oto mbalit yi dafa xawoon kon lii daal ñun ñu ngi koy rafetlu wax dëgg yàlla su rawatina ñun ñi nga xam ne fii ñu nekk man fii laa dëkk ci Kanda Fodé Baye gii laa dëkk kon di rafetlu lii bu baax a baax di ñaan autorité di ñaan gouvernement bi lii bu mu géej parce que set mooy lépp bu nit setul vraiment doo am wergu yaram balaa ngay tay lekk wala di tal wutil day leen day fekk nga set ku setul mënoo am leneen kon lii daal vraiment ñu ngi koy jaajëf jëf parce que tam di ko lu bu baax a baax. lii gis nga ni melokaan bi gis nga ko parce que fii day saboté sax parce que fii xam nga dafa nekk entrée Kaolack. entrée Kaolack bu melee nii ku romb naan Kaolack dafa salte loolu day day metti ci suñu xol Kaolack ñun dañoo bëgg Kaolack ñu mel ni yeneen dëkk yi ku romb Kaolack nga naw ko fonk ñu waaye lii moom dafa ñaaw ku raw ñoo naan Kaolack yooyu kawlag salte bi Kaolack yoo loolu dafay metti suñu xol yi parce que ñun ñoo fi dëkk